الحمد لله أنعم علينا بالإسلام ومن علينا بأداء فريضة الصيام كرما منه وإنعاما والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لجميع الأنام الذي بشر الصائمين بدخول الجنة من باب الريان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فرض الصيام على عباده في جميع الشرائع فتبارك الله اكرم الاكرمين واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله امام الصائمين وقدوه العاملين صلى الله عليه وعلى اله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن صار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد ñi ngi sant suñu borom tabaraka wa taala mi ñu xéewalee xéewalu lislaam baaxe ñu itam ñu jooxe weeru koor mu baaxe ñu ko ci taraangaam ak xéewalam di julli ci ki nga xam ne yàlla daf ko yónni mu nekk yërmande ci bindeef yépp kooku nga xam ne bégal na woorkat yi ne ñu ngi duggee aljana ëllëg ci bunt bu ñuy tuddee baabu rayaan di dee seede ne suñu borom tabaraka wa taala moom rek mooy buur bi yooyu ñu jaamu ko moo farataal koor ci jaamam yi ci mbooleem diine yi jiitu woon di seedale sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndawam la mooy njiital woorkat yépp mooy royukaayu jëf yëpp kat yépp itam yàlla yàlla dolli ci moom xéewal ak ci ay ñoñam ak ci saxaabaam ak képp koo xam ne jaar na ci yoon bi mu jaaroon ila yawmi diin bokki jaamu yàlla yi ñu ngi dénk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dénk di fàttali ne war nañoo régler sunu bopp lan la ñu jëf ci weer wu màgg wu tedd wi weer wi nga xam ne gan la goo xam ne mi ngi bëgg a tàggoo mi ngi bëgg a taxalikoo nun te bu demee fokk mu seedeel nu wala mu seede ci sunu kaw maanaam mu seedeel nu lu baax lu ñu ci def wala mu seedeel nu safaan bu ñu ci def nañu gaawantu ci li ci des ci tuub ak jégglu ak bari lépp loo xam ne jëf ju baax la ak wax ju baax ak di ñaan borom bu màgg bi tabaraka wa taala ndax mu janal nu mu jubbantil nu li ci am ci ay rëq-rëq ak i càggante ak ak neenal fani weer wi ñu ngi ko doon dundal ci koor di ko dundal ci tudd borom bi tabaraka wa taala di ko dundal ci jàng alquran ay guddee ñu ngi ko doon leeral ci julli ak di taxaw mbiri ñu ragal yàlla ci koor gi mi ngi nekkoon ci ni mu gën a baaxe fan yu sell yi dal di jàll guddi yu leer yooyu itam dal di wane gannaaw ba mel ne dafa mel ne benn bëccëg rek la woon ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu wuutalal nu li jote wéy mu wuutalal nu ko barke ci li ci des mottalal nu weer wi ci yërmandeem ak njëggalam ak goreelam ci safara ak texe ëllëg ci daaru salaam muy këru mu ci gëri aljanna ñu ñaan suñu borom mu delloo si weer wi ay yooni yooni yoon ci nun mu fekke ko fekk noo ngi xéewlu ci diine dëgg dëgg dëgg di xéewlu itam ci sunu àdduna di xéewlu ci jàmm borom bi tabaraka wa taala mooy ku tàbbi ku tedd ki mbokki jaamu yàlla yi suñu borom tabaraka wa taala yoonal na ci nun ci mujjug weer wi ay jaamu yàlla yu mag yoo xam ne moog weer wi ñu lënkaloo yoo xam ne sunu ngëm da ciy dolli koo suñuy jaamu yàlla daf ciy mate xéewalu borom bi tabaraka wa taala itam daf ciy gën a mat ci suñ kaw suñu borom yoonal na zakatul fitr muy asakay dog ñu koy wax asakay murum koor yoonal na ci itam ñu kabbar ci ayit gi yoonal na ci ni itam ñu julli julli ayit zakatul fitri yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko farataal bu nekk faa faa mooy ñeenti mudd mudd mooy sa bar ci loxo soo tibbee sa ñaari loxo loolu mooy mudd su ma nee ñeent loolu mooy faa waaye nag ñu ngi koy nag ci bopp yonente bi alayhi salatu wasalaam dikk na ci sahihul buxaari ñu jëlee ci abdullah ibn omar radiallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na asakay muuru koor mu nekk faa mu ne nga ne mu nekk andaar ci tàndarma wala ci lors wala ci lépp loo xam ne aw nit dinañ ko dundee farataal nañ ko nag ci ab jaam ak ko su bor góor ak jigéen mag ak ndaw ñoom ñëpp ci jullit ñi mag ak ndaw ak góor ak jigéen ñoom ñëpp lañ ko farataal seen kaw mu digle ñu di ko génne bala ñoo dem ci jullikaay ba ndax li nga xam ne abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma nettali na ko nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam farataal na asakay muru koor bokk na ci ay xikamam nee na tuhratan lissaim min allaxwi wa rafas nee na asakay muru koor dafay laabal woorkat bi ci neen yi mu doon def ci biir koor gi ak caaxaan yi mu def asakay muru koor bi da koy saxal ci loolu wa tu'matan lil masakin waaye dana nekk itam ñam ci ñi nga xam ne ñooy fàqir yeeg miskin yi ngir ñu mën a bokk ak jullit ñi ay mu ne ku ko joxe nag lu jiitu julli ga kon day joxe nga muuru koor bu ñu nangu waaye nag ku ko joxe gannaaw julli ga eet ga ci lu dul benn ngant ah ab sarax rek nga joxe ci sarax yi waaye du nekk sakatul fitr dikk na ci sahih al bukhari jële ci abi saïd al xudri radiallahu anhu mu ne nun de ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam daanañu génn bisu korite faa muy benn andaar ci ñam mu ne nun nag booba sunu ñam lor su la woon ak raisin ak tàndarma saa nag bi ñu ko nattee ci gëstu yi ci borom xam-xam yi def li muy tollool mooy deux kilo quarante grammes ñaari kilo ak quarante grammes loolu ci wax yi ci gën a dëgër la am nañu wax vingt cinq grammes am nañu wax itam cinq cent grammes waaye deux deux kilo daal ñaari kilo ak quarante grammes loolu mooy tolloo ak saa ci wax yi nga xam ne ju dëgër la day war nag nit ki génneel ko boppam génneel ko képp koo xam ne ab dundam daf ko war bu fekkente ne mënu koo génneel boppam waaye ku ko mën a génneel sa bopp kat yaa gën a yey ci génneel ko sa bopp ndax ak jaamu yàlla la goo xam ne benn jaam bu ci nekk moom lañ ko adressé su ko mënee kon mu defal ko boppam su ko mënul nag ah keneen daf ko defal warul nag ci lu dul koo xam ne gannaaw bu mu génnee dépense koriteem dese na dara su fekkente ne moom baaxee bi bi mu génnee li mu dese sax mënatul saa na joxe rek li mu dese ndax borom bi moo ne fattaqullah mastataatul ragal leen yàlla jaamoo leen ko ci ni ngeen man gannaaw bi mu génnee li mënta ñàkk ci moom li ko dese mënatul saa li mu dese rek lay joxe waxtu yi muy tàmbalee war nag mooy bu jant bi soow ci guddi korite gi maanaam bu ñëwee rek feeñ na guddi googu foofu la tàmbalee war ndax dafa lëkkaloo ak fitre da nga jël zakaat al fitre bu fekkee fitre bi ñëwagul ndax bu jant bi bu ñëwee weeri feeñ rek ñun ñëpp dog nañ ñun ñëpp woori nañ fitre boobu moom koy firee korite ndax bu ko firee dog bi ngay dog ci bi ci koor gi waaye dog bu mag bi moom ñu ne woori nañ kon man nga ne asakay korite la kon balaa tàmbalee war korite day dugg mooy suñ jant bi soo ñu ne weeri feeñ na foofu la tàmbalee war kon daf koy génnee ci guddi googu la tàmbulee ba ca suba ga ba ca ba ñuy julli ji waaye xam na salaa waxtoom mi ngi yem ci xam na salaa bala ñoo julli ci kon li ko tàmbulee ci jant bi soow ci bis biñ ne weeri feeñ ne ba ca suba sa ba ba ñuy julli ji loolu lépp waxtoom la waaye nag kenn wur ko génnee gannaaw julli bu lu ca ngànt kon nag mbokki julli yi nañu ko génne ànd ak sellal ànd ak yéene cee topp sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko farataal ci mboolem jullit ñi ndaw ñi ak mag ñi ba ci sax xale bu ñuy doog a dooñ xale buy doog a judd bañ koy doog a dooñ kooku dañ ko war a génne am na sax ay boroomi xam-xam yoo xam ne même sopp nañ sax ñu génneel ko ab ëmb kon ab ëmb moom warul ñu génneel ko ko waaye ku ku ko génneel ngir coobare wu itam waman sa sax lu dul nag nga xam ne doom jooju judd na lu jiitu jant bi sox lu jiitu jant bi sox su juddoo nga xam ne bi muy war fi la ko fekk kon danañ ko ko génneel amma su jant bi sox ba pare nag ku juddoo ci kooku moom warul la ndax bi muy war fekku la fi kon ñu génne ko mu nekk saa kenn ku ne génneel ko sa bopp génneel ko ñi nga xam ne yaa leen jaboote ci li nga xam ne moom la ñuy dunde moo xam pepp la moo xam ceeb la moo xam tàndarma la moo xam ci lépp loo xam ne doomu aadama dana ko di dunde suñu koy génne ñu teeyal ci suñuy bakkan ci génn gi maanaam ànd ci xol bu sedd tànn itam la gën a teey ci la gën a jariñ waaye bu mu doon loo xam ne soxla woo ko wala tayammamul xabiisa minhu tunfiquun bu leen seet loo xam ne baaxatul ba soxla woo ko doo ko lekk sax yow nga di ko joxe mu nekk saa benn yoon ci at mi kon nag doomu aadama bi waru cee nay war na cee góorgóorlu rawatina li nga xam ne moom la ko ci borom bi dig ci ay njëriñ ñu génne ko nag ci ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tërale ci aw ñam te bañ ko génne ci xaalis bañ ko génne ci xiimaam wala di ko génne ci ay yére wala leneen waaye li gën a wér sax ci waxe borom xam-xam yi mooy ku ko génne ci leneen lu dul aw ñam di joxe xiima ba du doy du wér ndax day juyoog la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ndax dafa wax ne man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad ku jëf jëf joo xam ne amoo ci sunu ndigal dañ la koy delloo kon ku ko jëfe leneen muy joxe leneen te moom ñam la waxoon ñu joxe ko ah kon da ngay jóge yonente bi alayhi salatu wasalaam kon nañ ko jox fuqara yi rawatina nag fuqara yi nga xam ne dañoo ñàkk ba noppi nekk say jege ñaare ñooñu ñoo ci gën a yey aayul nga jox benn faqir ñaari zakatul fitr maanaam boo génnee ci sa zakatul fitr njaboot ñaar ba ñett yépp mën nga ko jox benn faqir même lépp sax boo ko joxoon benn faqir bu baax benn zakatul fitr sa bopp bi itam bu la neexee nga séddale ko ñaari faqir wala sax ñetti faqir waa kër gi itam mën nañoo dajale seen zakatul fitr yépp natt ko def ko ci benn bool ba noppi nag doo ko tàmbali séddale buñ koy séddale booba aajatul natt lu ñu jox lu ñu jox faqir bi rek baax na fekk nag nattoon nañ ko ba def ko ci genn faan ba kenn ku nekk xam li nga xam ne moo tolloog li mu war a génn faqir bi itam su joxee benn fitra zakatul fitr buñ ko jox bu ko neexee mën na koo bu ko bëggee joxewaatal boppam moom it bëgg a génne zakatul fitri mën naa joxewaat loolu ñu ko jox wala mu génneel ko kenn ci njabootam waaye nag du mën a ñàkk mu nattaat ko lu dul nga xam ne wóolu na ne ki ko ko jox natt na ko natt bu ma sëkk bu dul loolu moom ne ko nattaat ba mu mat mu doog ko joxe kon nañu génne zakatul fitri ci bisu korite bi bala ñoo julli ji wala ci guddi gi bu fekkente ne jàppandi na bu fekkente ne nit ki génn na ko itam nag lu jiitu bari gi bis wala ñaari bis yan borom xam-xam yi wax nañ ne loolu dina wér waaye nag jiital ko lu ëpp ñaari fan moom du wér ndax itam bu soree bari gi ba mu ëpp ne duutu nekk zakatul fitr duutu nekk zakatul fitr ndax ay xikmaam mooy faqir bi jariñoo ko ci bisu korite bi kon su korite gi desee fukki fan nga génn ko ba loolu bala ñoo egg ca korite ga dana ko jëfandikoo bu yàgg moo tax ñu ne bu dee jiitu korite gi itam gën gaa bari bu mu ëpp ñaari fan kenn waru koo yeexee itam nag bay julli ay ba pare lu dul ci loo xam ne ngant la mel ne biñ lay wax ne weer wi feeñ na nga dégg ba suba gi nga doog a yëg ne weer wi feeñ na ngay waaj di julli ji génne zakatul fitri xaju fi foofu moom am nga ngant bi génne ko ci diggante bi soo demee ba ñëw da nga ko mën a génne zakatul fitri nag soo ko joxee wakiilul faqir maanaam ki faqir yi bi wax ne diw de boo ma ko joxalee danaa ci jot nga joxe ko ca waxtu woo yow kon bari ak dimmatu mooy sa jaan wàcc na moo xam kooka jox na ko faqir ba ca waxtu wala joxu ko waaye soo ko joxee rek sa wakil yow koo xam ne yaa ko jël ne ko joxal ma ko faqir bi loola sa jaan du wàcc maanaam muur koor du la wàcc lu mooy nga xam ne joxe na ko ca waxtu wañ ko war a joxe ndax boo joxoon nit ni muur koor ne ko joxal ma ko faqir bu bàyyi ba julli ji ba ñëw doo ko joxe kon yow sa muur koor du wér war ngaa vérifier ne moom joxe na ko ci waxtu wiñ ko war a joxe comme yow sa wakil la amma ki la faqir bi ne joxal ma ko ko nag kooku moom soo ko ko joxee day mel ne jox nga ko faqir bi la faqir bee la boole kooku kon day mel egg na ci fàqir ba donte koo ko joxoo ko ko fàqir bi loolu moo tax bàyyi xel am na takbir yi nga xam ne moom lañ war a def suñu borom tabaraka wa taala daf koo yoonal dafa wax ne walitu kumilul idda matal leen fani weeru koor walitu kabbirullah ngeen kabbar borom bi tabaraka wa taala ala ma hadakum wa laallakum tashkurun kon suñu wooree ba weeru koor bi jeex dañuy kabbar suñu borom tabaraka wa taala bu jant bi soo rek ci guddi ayib googu foofu la kabbar yi tàmbalee dañuy kabbar ci jàkk yi di kabbar ci kër yi di kabbar ci marché yi kabar yi mooy allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walilahi alhamd nit ki di baril lu muy wax loolu di ko biral ca kaw ngir màggal borom bi tabaraka wa taala ngir feeñal mandargay diine amma jigéen ñi ne ñoom dañ koy yelu julit korite wala julit ayit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digal góor ñi ak jigéen ñi ba ci ñi nga xam ne sax ay jigéen yu ndaw lañu xam ne baaxoowuñu di génn digal nañu leen ñu génn ci bisu korite boobu ba ci jigéen ñi nga xam ne sax dañoo gis baax nañu génn fekkee ci ñaanu yiw wa nga xam ne moom la ñuy ñaan waaye ñi gis baax ne suñu ñëwee nañu beru nañu beru bu ñu nekk ca jullikaay ba waaye daal nañu jege mbooloo mi waaye nag séparé wu ak ñoom dikk na ci sayihul buxaari ak sayihu muslim jële ci ummi atiya mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf laan daan digal ñu génn ba ci jigéen ñu ndaw ñi ba ci jigéen ñi nga xam ne sax dañoo yara baax waaye mu digal leen ñu beru ngir ñu teewee ñaanug yiw wi nga xam ne dana wàcc ci bis boobu nee ma ne ko yaa rasulallah ihdaana laa yakunu laha jilba nee ma ne ko am na ci nun kat ñoo xam ne duñu am jàllaabi bu ñu sol maanaam li jigéen war a sol ba mu muur yaram yépp mu ne kon na ko mbokkam solal ci ab jàllaabeem maanaam kon su amee beneen mbokkam bu am na ko abal wala buñ mënee toog mu yiiraale ko ci jàllaabe bi sax mu defal ko kon mbokki jullit yi dañu génn dem ca jullit ayib ga góor ak jigéen mag ak ndaw ngir jaamu borom bi tabaraka wa taala ak nag topp ndigalu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak itam sàkku aw yiw ndax bari waana ay yiw yu baree baree bari yuy wàcc ci jullikaay boobu bari na ay may yu baree baree bare yu bara borom bi tabaraka wa taala di maye bari na ay ñaan yu baree baree bari yu borom bi nangu ci bis boobu góor ñi nañu génn set nekk ñu xeeñ xat goo xam ne gu neex la muy laal seen parfum sol yére yi gën a rafet ci seen yére même ku amul lu beeseen nga sol yére yi gën a rafet ci sa yére waaye nag du dagan ci góor muy sol liñ ko tere ci ay yére muy alxarir muy sooy wala muy takk dara loo xam ne ci or la jëm loolu moom góor du ko boole ci wàccaayam ndax dafa aram ci moom jigéen ñi itam nañu génn waaye ànd ak solu col gi nga xam ne moom la leen lislaam digal te bañ a laal dara ci gët ci parfum bañ a nekk mutabarrij mooy bañ a feeñal dara ci seen ziina muy lépp loo xam dañ koy dollee seen saar loolu jigéen bu mu ko feeñal wala yubdiina ziinatahunna illa ma zahara minha li sunna nag mooy nit ki balaa génn ci bisu korite mu lekk ay tàndarma te tóol ba lañ gën a sopp ñetti tàndarma wala juróom wala juróom-ñaar bu fekkee benn tàndarma la am itam mu dagg ko ñetti dagg dagg ko ñetti dagg moom benn tàndarma bi su ko defee lekk ko ci ak tóol anas ibnu malik radiallahu anhu wax na ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daawul xëy bisu korite lu muy mu lekk ay tàndarma te def daan leen lekk ci ak tóol wa yakuluhunna witra te borom bi tabaraka wa taala moo ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen royukaay ci képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm nga bis bu mujj ba kon ñu roy ko ci loolu bokk na ci li nga xam ne itam lu ñu sopp la mooy toftal juróom benni fan ci koor gi ci koor gi bu ñu waree ci sawaal nga woor ci juróom benni fan abi ayuba al ansaar yi moo nekk li jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne ku woor weeru koor toftal ca juróom benni fan ci sawaal ci korite nee na dafa mel ne koo xam ne woor na jamono bépp dafa mel ne ku woor at mi yëpp hadis boobu muslim soloo na ko loolu lu yomb dégg la ndax alxasana bi asri am saaliha benn bu baax soo ko defee fukk lañ la koy fay kon weer lu weeru koor soo ko wooree am nga fukki weer soo ci toftalee juróom benn fan juróom benn fan yooyu ñaari weer lay tollol ndax benn fan bu ci ne fukki fan lay tollol kon at mi suñ ci génnee fukki weer mu des ñaari weer nga woowaat juróom benn fan kon mott li nga ñaari weer yi kon day mel ne woor nga at mi yëpp fan yooyu ndax daf ne man saama ramadan man saama ramadan ku wóor weeru koor ba mu yegg summa atbaahu nga taftal ka yow nag su fekkee sa weeru koor matagut mën a goo dugg ci man saama ramadan kon li nga war a def kay mooy xëy ndax gannaaw yaa ngi bëgg a woor juróom benni fan yooyu li muy tekki mooy la la daloon ba ba nga dogoon ci koor gi dañ na te bu dañee nag li nga war a njëkk a def mooy xëy soo xëyee ba pare nag li des ci biir sawaal bi nga mën cee woor juróom benni fan yooyu ndax nag sartuñ ci ne ne sës ci juróom benni fan yi sës ci kore gi waaye ci biir sawaar rek lañ wax donte nag sësal ko ci moom moo ëpp yiw moo gën ndax al mubaadara ila al amali saliha moo gën muy gaaw a jëf jëf yu baax ndax leneen mën na laa fab bi ba doo ko safar def woor juróom benn fan yooyu am na ay njariñ yu bari bokk na ca njariñ ya dama la mottalil yoolu koor nga am tuyaabay ko woor at mi yépp bokk na ca njariñ ya itam woor dara ci saabaan bi weeru kor wi jàlle itam nga woor dara ci weeru korite wi dafay xaw a nuroo naafila yi ngay def booy bëgg a julli booy julli dawal ay rakka boo jullee ba noppi dawal ay rakka ñu ngi koy tuddee ak sunanu rawaatib koor gi itam kon day mel ne da nga ko defal sunna boobu ndax sunanu rawaatib yooyu ñooy mottali manqué manqué yi nga xam ne moo am kon su fekkoon ne am na loo wooroon ci saabaan muy dawaloon nga am na loo woor ci sawaal muy toftal nga ñaari naafila teq nañ koor gi ñaari naafila yooyu lépp loo xam ne manqué lañ ko ci koor gi borom bi tabaraka wa taala dal na ko ci mottali bokk na ci itam ci ay njariñam wooraat gannaaw boo jeexalee weeru koor bi day tekki ne sa koor nangu nañ ko ndax borom bi tabaraka wa taala bu nangulee jaam bi da koy defal tawfiq mu daal di mën a jëf jëf ju baax maanaam soo jëfee jëf ba pare ju baax borom bi tabaraka taala su ko nangoo lay mandarga ma dalay defalaat tawfiq nga mën cee sësalewaat jëlal jëf ju baax moo tax lenn ci salafu saalix daa lañ def bu ñu mataa am tawfiq guddi goo xam ne yàlla da leen a baaxee ñu mën koo naafila naafila ca naafila yu ba sëkk bu ñu xëyee bis boobu dañuy woor ne dañ koy sante borom bi tabaraka wa taala kon nag xéewal gu toll noonu itam ko ko borom bi tabaraka wa taala wërsëgal nga woor weeru koor ba mu yegg war nga caa teg nag juróom benn fan yoo xam ne sante ko borom bi tabaraka wa taala ci tawfiq gi mu la defal ci mën a woor weeru koor woowu